soxna Seynabou Gueye alias Bijou borom xam-xam bu yaatu bi borom gis-gis mu leer bi nekk Pikine Texaco numéro téléphone am di 78 122 07 97 moo leen di may seen émission préférée. ginnaaw bi yeewi askan bi yeewee askan bi ci local 2022 yi Queen Biz génne na ab clip tuddee ko yeewi gaynde yi ginnaaw ba mu fi génne moom Queen Biz bi gaynde yi fu balee ñaari match yoo xam ne dañ koo match nii duguluñ ci benn match ab bi benn gannaaw bii bi nga xam ne moom la Sadio Mané jotoonu dugal moom mi di Queen Biz ci di posté ci Facebook am bi xam la ni su ma dugaloon ba léegi suma ma génne woon clip bi way gaynde yi ba léegi suñu gaynde yi ñu ngi dugal ay bii ñu leen di wiiw ak di leen bravo moom mi di Queen Biz génne na wayam bi nga xam ne moom la tuddee yeewi gaynde yi ginnaaw bi mu ko posté nag ci biir réseau social bi ñu ngi koy defal ay commentaire bu ci nekk ñu ngi koy xamal ne ko nag kan moo la wayloo ana kan moo la wax nga daal di way ginnaaw bi nga waye nag na la leer nañu ne Queen Biz na nga ñu yóbbee nag defet na nga ne kan bi jeex na tàkk ci ñun nag ñun waa Sénégal nañu yeewi suñuy kaakat te fas yéene ñëw ñibbisi te xam ne Queen Biz moo waay ba mu xasee ba way la jeexal tàkk terewul moom woykat bi le génn na way bi tuddee ko yeewi gaynde yi ab teaser boo xam ne ma nga ca sol drapeau Sénégal taxaw fu xaw a àll di jéem a way gaynde Sénégal yi moom Queen Biz fas yéene naa teg boobu lépp clip fi nga xam ne moom moo di ci réseau social bi ñëpp fas yéene koo teg seeni bët Wally Ballago Seck mu ñu seen ci ab vidéo muy bravo gaynde ñi nga xam ne ñoo di Gambien moom mi di Wally Ballago gannaaw ba Gambien yi qualifié ci quart de finale bi Coupe d'Afrique xam ne ci la ñu nekk ci la daal di génn def ab vidéo baax a baax ci ndam li nga xam ne waa Gambie am nañu ko tey yaakaar na nag ayu fi nag dana mujj final boo xam ne Sénégal ak Gambie ñu seen leen ca final ba ñu koy jongante ba ñu ko laajee bu ñu demee ba final nag ñaar ñooñu war koo jongante ana kan nga ciy faral mu ne su boobaa damay toog seetaan la ku gañe rek ma daal di jibe ànd ak ñooñu le waaye ñaari réew yëpp samay ñaari réew lañ waaye ak lu ci mën a xew kontaan naa bëgg naa ci ndam li nga coupe d'Afrique bi nga xam ne ñu ngi koy amal jamono jële foofu la ca Cameroun Cameroun démb na Île de Comores waaye nag na mu ko dóoree ñu bari ñu ngay ñaawlu seeni jëf ji nga xam ne ñu ngi koy jëf dafa mel ni gars dañuy jàppal tànk Cameroun ndaxte ñi nga xam ne ñoo di waa Comores ca match boobu mu dooree juróomi minute la doxal ñu daal di seen benn joueur boo xam ne ma nga woon ca défense ba jox ko aw carton rouge ba noppi di leen njaay cekk ci a bëgg a jàppale cas covid waaye Cameroun moom ba tey nemeekuwuñu fa da ngeen a covid a ni mel benn buzz li waral loolu le moom moo di Umaro animateur bi nga xam ne ñu bari dañ koo xam ci buzz dafa demoon woon ba gaay kenn déggatu ko kenn xamatu ko ay émission kenn seetaanatu ko dafa mel ni ku naroon a fay mu jékki-jékki ne xaaral ma génn yëfi la def benn coup montage daal di génn yëfi daal ne damay takk alima bu TFM loolee mooy bës bi nga xam ne moom la ci doon ut waaye yëfi daraa ci amul benn coup la boo xam ne dañ ko doon def ngir ut ci seen bës Ahmed Aidara ak Ndoye Bane seen bës ma nga ca mairie léegi moom it di Ahmed Aidara ak Ndoye Bane ñëpp xamee nañu moo di faits divers yañ daan def kenn ka ca tës kenn ka ca xalaas ñoo leen daan waxal léegi nag ñaar ñooñu ci seen mairie ya la ñuy dem fas yéene faa toog di liggéeyal seen wu askan jamono ji la nag ay maire lañu ñoom ñi nga xam ne dañu daan toog di wax ay fait divers ak la ca aju daan ko indi ci li nga xam ne moo di émission tës wala xalaat ñaar ñooñu le fal nañu leen nag ñu war a liggéey nag taxaw ci seen askan liggéeyal leen keneen ki doon xëccoo ngir liggéeyal aw askanam moo di maam góor jasaaka moom i di maam góor jasaaka ca tëngij la doon xëccoo aw méeréem waaye dafa mel ni gaay dañu koo daal di duma ba mu newaale loolee terewul mu daal di génn def ab vidéo moom mi di maam góor jasaaka di sàkku ci gaay ñu daal di koy jox ab ab victoire am nee na sama victoire bi da ma koo bëgg a sàccal da ngeen koo bëgg a foqarti ci samay loxo waaye du ma ko nangu man maam góor jësaaka nag dinaa xeex ba jot ci sama ndam a foqarti ci samay loxo du a sàcc te élection liggéey bi liggéey jotee damaa sonn bi sonn jotee damaa wër bi wër jotee damaa convaincre sama askan sama xeet dama leen convaincre ñu daal di may sànnil seeni carte kon nag du nangu kenn kaw kenn koo xam ne dafay jóge ci àll ba sànnil ma samay carte ma liggéey ba tolli fi ma toll ñu war maa fay la ma Ibrahima Ndiaye Cekke moom mi di Mame gaay gaay bëgg koo sàcc waral na nag mu bëgg a dem ak gaay ci yoon fas yéene lijjanti yi ba mu leer nañ ni mi dékki sonjal moom mi di Mame Gor Diazaka nanguwul bàyyi yi mu sedd jàpp na ni victoire bi moom moo ko moom moo war a jiite Rufisque jamono jël liggéey ko ca na mu ko waxe ak askanam liggéey ko ca na mu dugge ci seen biir daal dagaan seeni baat benn par benn ma daw ci ministère de la santé et de l'action sociale jëli leen point covid 19 bi tey jële di mardi yem ak 25 janvier atum 2022 ministère de la santé et de l'action sociale def nañu 1011 tests ci ñooñu le ñu am ca 79 ñu amee yees mbas mi di covid 19 4 cas contact la ñu ca amee mooy ñi amee mbas mi caxasoog ñi amee mbas mi ba faat fa jaare am mbas mi 74 cas communautaire la ñu ca am mooy ñi amee mbas mi taxamuñu fan la ñu ko jëlee lu toll ci 346 patients faj nañu leen ba ñu wér ñu delluwaat ci seen i biir kër doxewaat seen i te quatorze cas garaaw la ñu amee ci lalu réanimation ya ñu war leen a ñu jotaat seen i bakkan ñeenti bakkan ñu faatu la ñu nemmeeku fii ci Sénégal te mbas mii di covid 19 waral ko démb ci lënd bi yemook 24 janvier atum 2022 bi fu mbas mi tàbbeeg léegi fii ci Sénégal 84 453 cas lañ fi déclaré positif ci ñooñu leen 78 ñu faj lañ ca ba ñu ci seen bakkan nekk sous traitement jamono jile ni ma ko baaxoo def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 allahu xasbi li diini xasbi allahu aksil ak jàmm fii ci Pikine Texaco fi jàkkaarloo immeuble Mor Yombale fekk si fi soxna Seynabou Gueye alias Bijou borom gis-gis bu leer baa ngi nii voyante bu mag bi nga xam ne dafay seet ci xeetu seet yu bare bare lu toll ci ñaar fukki seet ak juróom benn seet boo ci bëgg mu daal di la ciy seetal te bu mu la seetal ba bàyyi nga jàpp ne boobu la nee naa la ak soxna Seynabou Gueye Bijou mi la voyance ça sera autrement mani la yow mi nga xam ne dangaa amee jafe-jafe ci wàllu cat rab def def nekk ci yow ñu def ci yow liggéey dangaa bëgg ay kayit dangaa bëgg a sëyi dangaa bëgg ubbiku sa wërsëg yaatu danga bëgg a tàqalikoog lépp lu lay tëj ak lu lay yàqal niwal nga jokkook moom mu daal di lay sang ci tuuram ya mu amee lépp denc ci sa yaram bi le jokkool ak moom gaaw ci 78 122 07 97 78 122 07 97 xam-xam day yaatu lool te baax xam-xam itam dafay leer te soxna seen bu gëy cëpp kin teg zaako ku ko fekk ji xam ne moom rek la moom kott la moom la moo tax ma ni la la voyance autrement avec soxna Seynabou Guèye dun mu nii bun del déglu del xool Feeling Dakar site bi Dakar yaa am info yu ci people sport politique